wajalhu zakiran wa shakiran abad wajal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen balu ak leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu jataay xam-xam yi ñuy fàttalanteendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu euh, te ñu tolloon ak yéen ci téeréen bi nga xam ne moom la tudde maxaalikun niiraani wa mafatixul jinaan ñi ngi doon ànd ci bind yu weesu ak yéen yëpp ci euh, biir téere bi ba suñu bind bi mujj ñi ngi taxawoon fi sëriñ bi doon waxe ci li nga xam ne moo di sarti tuub ñu taxawoon ci bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi doon wax ne aji tuub ji bu mu yeexantalu waaye bu mu ne dinaa muñandiku ba yàlla doog may baaxee ma mën a tuub waaye na def kem kàttanam rek ba bu defee eh, aw ñaawteef wala mu def bàkkaar mu taxaw temm ci eh, tuub ko waaye taxaw mu ci jéggalu ko moom la sëriñ bi doon wax ne wala lahu taxirun aw tasabburu li tawbatin wala yaqulu asbiru xata tafi hidayatu fa inna za alaamatul xislaani sëriñ bi nee def bàkkaar war tuub day di yeexantalu wala ngay wax naan damay nëg ba suñu borom bi subhanahu wa taala gindima te defoo yitte ci tuub bàkkaar boobu nee lool day màndargaam ku torox rek la waaye màndargaam gàcce dëgg la ci bind boobu la ñu taxawoon sëriñ bi radiyallahu di tontu rek ba tey ne di wax ne ma soxawati ànd ak texee di waraynul xal bi ak wowu xol inni naka man de a'uzu maa ngi muslu bi rabbi ci sama borom min huma ci ñaar yooyu sëriñ bi nee na day nit ki e, def bàkkaar war koo jéggulu war koo tuub di yeexantalu wala muy wax naan damay xaar ba suñu borom bi subhanahu wa taala gindi ma mu doog tuub sëriñ bi ne na lool dey ci màndargaam texee di rek la waaye ci màndargaam wowu xol la maanaam borom xol bu wow rek moom mooy def loolu sëriñ bi nag nena na yàlla nañu yàlla musal ci ñaar yooyu yëpp kon aji def bàkkaar ji saa bu defee bàkkaar na taxaw temm ci tuub ko waaye na taxaw temm ci jéggalu suñu borom bi subhanahu wa ngir mu jéggal ko waaye bu mu fa nekk di eh, wax naan damay xaar ba bis sàngam wala muy njaaw bu jéggaloo yàlla du ko jéggal yooyu yëpp eh, sëriñ bi radiyallahu anhu nee na mandargaam te xeedi la waaye itam mandargaam woowu xol la te ñaar yooyu yëpp ne yàlla nañ ci borom bi subhanahu wa taala musal mu ñuy leeral tuub buñ ko waxee dëgg-dëgg tuub mooy lan mu ne xaqiqatu tawbati dëgg-dëggi tuub day bu ko waxee tarku zanbin mooy bàyyi bàkkaar sabaxa bopp jiitu na misluhu bu ni mel li wajhi rabbi ngir jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi radiallahu anhu nee na tuub dëgg-dëgg day bu ñu koy wax mooy bàyyi bàkkaar boo xam ne defan nga ko lu jiitu te bàyyi ko te jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax bàyyi ko te jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax doo ko bàyyi ngir dara waaye da koy bàyyi ngir suñu borom bi subhanahu wa taala mi la bind alaxtiyaarin ci ak tànn maanaam ci ak coobarewu yow yaa koy xam ne lii yow yaa ko def nga bàyyi ko laaka misli sama du caagee ne euh, tëx i farjin ak jàngoroy kanam waaman ak gumba wa bakamin ak lu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kon tuub dëgg-dëgg buñ koy wax daal mooy nit ki bàyyi bàkkaar boo xam ne defoon na ko te mu jiitu waaye bàyyi ko ci coobareem bàyyi ko te yàlla tax bàyyi ko xam ne lii suñu borom bi subhanahu wa taala moo ko araamal moom moo ko tere moo xam bàkkaar boobu ci ay nopp la jëm mu bañ tëx luu ca wala mu jëm ci li nga xam ne mooy aw làmmiñ mu bañ mu mu mu fexey ba euh, baña Euh, saxal bàkkaar boobu di ko def mu fexey ba bàkkaar boobu mu bàyyi ko bañ koo tudd ci aw làmmiñam waaye itam bu fekkee ni ci ay bëtam la mu gumba ca bañ koo xoolati bu fekkee ni ci li nga xam ne mooy kanamam la jëm itam mu fexey ba bàkkaar yooyu yëpp mu moytandiku ko kon yooyu yëpp bu ci ne mën naa def bàkkaar waaye bàkkaar ba nga xam ne moom lay def dëgg dëggi tuub ko mooy lan mooy bàyyi bakar boobu waaye bàyyi ci sa tànn ci sa coobarey bopp waaye def ko te jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax moo tax mu ne bal li fi nekkay mooy tarkuhu mooy bàyyi ko faqat dong li tanzimil azimi ngir màggal aji màgg ji te mooy suñu borom bi subhanahu wa wal xaw fi ak ragal ko aydan ba tey wal xaw fi ak ragal aydan ba tey min azabihi ca mbugalam ma al alim may aji métti tey aji tar lool sax kon ne na li fi nekkay mooy bàkkaar boobu nga xam ne moom nga def te suñu borom subhanahu wa taala tereen la ko nga def ko ba pare na nga ko bàyyi waaye boo koy bàyyi nanga ko bàyyi ngir jëmmi yàlla rek tax waaye ngir màggal suñu borom subhanahu wa taala rek tax waaye na ko bàyyi ngir ragal ëllëg suñu borom subhanahu wa taala mbugal la ci ca mbugal ma nga xam ne képp koo xam ne jàdd nga aw yoon ëllëg euh, suñu borom subhanahu wa taala mën na la cee mbugal. te tuub nag dafa doon loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf cey soññe bu baax a baax a baax te day leeral jaam ñi fu mu toll ne Euh, tuub moom ku ko def suñu borom bi subhanahu wa taala mën na laa jéggal ak bàkkaar lu mu rëy rëy euh, jaam bi waruta naagu ci yërmande suñu borom waaye bàkkaar lu mu màgg màgg jaam bi li ko war mooy euh, dëkk ay loxoom suñu borom bi subhanahu wa waaye tuub tuub bu sell fas yéene bañ a dellu ca bàkkaar yooya loolu mooy li nga xam ne mooy warteefu jaam bi waaye jaam bi warta ñaaw njortu ci boromam ci ne bu jégguloo bàkkaar du ko ko baal ngir rëy gu bi rëy wala ñaaw gu bàkkaar bi ñaaw loolu lépp ci mandargaam texee di la waaye mandargaam wowu xol la kon nit ki saa boo xamee ne suñu borom subhanahu wa taala nattu na ko ba mu mooy na fexey mu tuub tuub ngir yéene bañ a dellu ca mooy ga nga xam ne moom la defoon waaye bu tuubee tuub googu itam yàlla nattuwaat ko mu dellu ca mooy googu na dellu tuuba tuub bu sell te fas yéenee bañ a delluwaat te bàkkaar booba saa boo xamee ne def na ko mën nañoo am yaakaar ci njëggalal suñu borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa ihtada naka man mi nga xam ne maay seen borom day aji jéggale ñeel képp koo xam ne aji tuub la waaye tuub ba pare gëm gëm ma man mi nga xam ne maay boroomam waaye tuub jëf tegaat ca jëf ca nga xam ne moom la defoon te muy jëf ju ñu araamal di jëf ju ñu aaye mu tegaat ca ginnaawam jëf ju rafet jëf ju baax waaye topp mu bàyyi lu ñaaw la moo doon def lépp euh, tàmbali di jubal suñu borom ne ne képp koo xam ne def nga lool day mooy tuub nga tuub gu sell gëm ma walbatiku bakkaar yi nga xam ne moom nga defoon nga wëlbatiku di jëf-jëf ju baax topp ngay nga nga nga nga jub di e, gindeeku di tege ci yoonu siraatal mustaqim kooku suñu borom subhanahu wa taala ne man maay jéggale te bu tuubee jëm si ci man ma jéggal ko muy waxaat ba tey ni yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu borom bi subhanahu wa taala na ngeen tuub jëm ci seen borom waaye tuub bu sell ngeen di tuub tuub bu sell nee na bu ngeen ko defee day asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudxilukum jannatin tajri min taxtiha al anhar nee na su ngeen ko defee day euh, am nañ njort am na yaakaar bu baax ki na suñu borom subhanahu wa taala dana leen jéggal seeni ñaawteef waaye dana leen baal seeni bàkkaar waaye dana leen tàbbal li nga xam ne mooy euh, jannatu al firdaws kon jaam bi li nga xam ne moo ko war digganteem ak boromam mooy lan mooy mu muy tuub bu defee ay ñaawteef waaye bu defee ay bàkkaar muy tuub tey dellu ci boromam bi subhanahu wa loolu su ko jaam bi defee mën naa uh, am njort lu rafet ci ne suñu borom subhanahu wa mën na koo jéggal ndax suñu borom moo ne inna allaha yaxfiru dunuba jamia suñu borom bi subhanahu wa taala day jéggale bàkkaar yépp léeg-léeg ñuy wax naa ndax bàkkaaru bokkaale suñu borom bi subhanahu wa taala du ko jéggale loolu li ñu ci jublu mooy bàkkaaru bokkaale ku ko def te tuuboo ko maanaam tuuboo ko ba xam ne yow mi yaa def bàkkaar bi tuub ko suñu boroom jéggal la ko bu boobaa na nga xam ne bàkkaar boobu mi ngi ak yow ba léegi waaye nag yeneen bàkkaar yu ndaw ndawaan yi nga xam ne doomu aadama bi léeg-léeg mu fakkastalu def ko bàkkaar yooyu la ñuy wax ne suñu borom subhanahu wa taala mën na koo jéggal sax te du ko tuub waaye nag bu dee bàkkaaru bokkaale moom tuub rek moom mooy tax ñu jéggal ko aji def ko suñu borom subhanahu wa taala di ñu bu baax itam di ñu wax ne bu leen naagu mukk ci sama yërmande maanaam euh, ndax man de damay jéggale bàkkaar yépp xul yaa ibadi alladina asrafu yaa ibaadi allazina asrafu ala anfusihim laa taxnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim yéen sama jaam ñi nga xam ne yéen a ma gëm day euh, bu leen di yàq seen bakkan yi ci di naagu ci sama yërmande maanaam bu leen di naagu ci sama yërmande euh, def bàkkaar boo xam ne da ngeen di jàpp ne euh, bu ngeen ko jégguloo duma leen ko jéggal wala ngeen jàpp ngeen xatal sama yërmande ba jàpp ne dangeen di def loo xam ne bu ngeen ko jéggaloo duma duma leen ko jéggal ndax man mi nga xam ne maay seen borom day lépp luy bakkaar dama koy jéggale ndax man maay jéggalaa kon bi man may aji yërëmi kon loolu li muy firi mooy jaam bi bépp bakkaar boo xam ne def na ko wëlbatiku tuub ko bu boobaa tuub googee bu doonee tuub bu sell suñu borom bi subhaanahu wa taala mën na koo mën na koo jéggal kon loolu lu ama am solo lu nit ki war a bàyyi xel moo tax mu ne bal tarkuhu faqat li ta'zimil kon daf koy bàyyi day bàyyi bàkkaar bi dong ngir lan ngir màggal aji màgg ji te mooy suñu borom subhanahu wa taala wal xawfi akuk ragal aydan ba tey min azabihi ca mbugalam ma al alim aji métti ay tey aji tar maana daamatin ànd akuk rëccu alama la nga xam ne xat xalaa wéy na minal maasi ci ay ñaawteef ci ay moy wala yuubi ak ay Euh, sik mooy ay gàkk mus bu mu ci man di doon kon bu tuubee bu paree def loolu ngir màggug suñu borom subhanahu wa taala la mu cey teg mooy daf cay dolli nag rëccu li nga xam ne moom la def euh, rëccu bàkkaar yi nga xam ne moom la def euh, te bépp bàkkaar bu man doon wala bépp ayib boo xam ne def na ko na wëlbatiku rëccu ko te bàyyi loole te suñu borom subhanahu wa taala rek tax kon maana daamatin day ànd ak réccu alaamat alaamaa xat la nga xam ne wéy na minal maas ci ay mooy wal uyubi ak euh, ay ay ay ay ay ay ay ay maanaam ay gàkk-gàkk bu mu ci mën di doon mu ne wa min surutiha bokk na ci sarti tuub ba tey bi xawlin ulama ci waxi boroom xam-xam yi rabdul mazalimi delloo way tooñaange ya hmm? ilaa man jëm ci ñi nga xam ne zulima tooñeef na leen nee na bokk na ci sarti tuub ba tey mooy nit ki su fekkee ne da nga koo tooñ da koo tooñ li nga xam ne moom nga ko tooñ nga delloo ko ko li nga xam ne moom nga ko tooñ nga delloo ko ko maanaam da nga jëloon alalam demal ba ci moom nga delloo ko alalam ne ko sa alal jiikat maa ko jëloon jéggalu ko ba mu baal la nga dem da nga jëwoon ci da ko koo jëwoon nekk ci ab dërëm di ko yàq demal ba ci moom nga ne ko kat man maa yàqoon sa der fii ak fii ak euh, loolu kat nag ma ko jéggal te jëm suñu borom subhanahu wa taala rek tax kon li nga xam ne moom nga tooñ doomu aadama bi na nga dem ba ci moom nga delloo ko ko ndax tooñ dafa doon loo xam ne lu diis la te dañuy wax ne euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam day wax ni euh, az-zulmu zulumatun yawmal xiyaama tooñ ay bàkkaar lay lay jural boroom ëllëg yawmal xiyaama te dañuy wax ne ñaanu ku ñu tooñ suñu borom subhanahu wa taala daf ko du ko delloo moo tax ba nit ki war a moytandiku bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy tooñ waaye moytandiku bu baax a baax lépp loo xam ne dafa jëm ci àqi euh, doomu aadama euh, muy fexey di ko moytandiku waaye muy fexey di yorel bañ a yoreel doomu aadama yi ay àq yoo xam ne ëllëg mën na koo gàllankoor moo tax mu ne fal yordu di fal yardu di nañuy delloo al am waala alal ya lil arbaabi ñeel boroom ya in wujudu ndeem ña nga fa ad dahra diirub jamono bilartiyaa bi ci lu dul sikk summa isalam yujadu ndaal ndeem nekkuñu fa nag fal yardu nañu ko delloo li waari fiihim ñeel donnu leen bila taraddudin ci lu benn deng deng summa isalam yujadu ndeem fa nag tasaddaxa kon ñu saraxe anhum wolif leen biha ca seen alal yooye kama xaaka naka mu net le man ka nga xam ne xaqaqa dëggal na nee na nit ki day su fekkee ne da nga koo tooñ ci alalam nga ko tooñe maanaam da jël alalam te moom mi ngi dund ne na nga jël alal jooju nga dem ba ci moom nga delloo ko ko na nga jël alal ji nga dem ba ci moom nga delloo ko ko nee nga jëloon alalam day dafa dafa dafa nekkut maanaam dafa faatu wala dafa daa jóge fi nga xam ne foofu la nekk nee na na nga fexey ba wër ko bu fekkee ne mënu jot ci moom na nga delloo alal ji ña nga xam ne ñooy way donn ko bu fekkee ne daf fay jóge maanaam bu faatu woon ñi nga xam ne ñoo koy donn na leen wër nga jox leen alal su fekkee ne ke ko moom dafa dafa faatu wala dafa nekkatul su fekkee ne ñi koy donn kenn nekku fa nee na na nga delloo na nga jël alal jooju saraxe ko waaye boo ko saraxee nga yéeneel ko yool ba moom mi nga xam ne moom moomoon alal jooje kon euh, alal ji li nga xam ne mooy alali jàmbur su ko nit ki jëlee yooyu rek moo ci mën a am mooy mu delloo ko boroom su fekkee ne boroom nekku fa mu delloo mu yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoo ko waroon a donn su fekkee ne ñi koy donn ne wuñu fa mu fexey alal joojee mu saraxeel ko ko te yéene ko yool bi euh, su ko defee bu yool bi eggee ci moom suñu boroom subhanahu wa taala mën na koo jéggal ki nga xam ne moom la defoon bàkkaar bi itam mën na koo jéggal kon bàkkaar euh, nit ki soo jële alalam maanaam sàcc alalam wala nga jël ko ci loo xam ne du tey bakkanam la nga xam ne mooy tuub gi rek mooy bu fa nekkee mooy na nga ko delloo ba ci moom doo koo jéggulu waaye bu fekkee ne da koo lekk ba pare di ko jéggulu loolee daanaka du doon ak tuub waaye du doon ak jéggulu euh, kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax mu ne wayastaxillu dana jéggulu itam kullu ardin bépp der akala boobu lekkoon na ko bi riibatin ci jëw aw rasfin wala ci ak ŋàññe aw satmin wala ci saaga di wax wax ju ñaaw jalaa bu mu man di doon loj wuññiku na in xadara ndeem teew na almazlumu aji to euh, aji toonja summa in fuqidu ndaal ndeem ñàkkeef na ko fal siri nabaril alxayra yi wala allahu xëy moom yejit mu fekk ko E, say an dara yu waddi jot dana e, bijji xaqa kullihim àq képp képp ci ñoom bihi ci moom mustaghfiran muy aji jéggal ko wal yarju te mu te muy yaakaar afwa rabbihi jéggalul borom bi subhanahu wa la dana itam ki nga xam ne maanaam dafa tooñ nit ci jëw ko na fexey la mu ko jëwee na fexey e, fa mu mu fu mu jaaran jëw ko na fexey jaar fa defaraat at deram bu fekkee ne daf ko tooñ ci ŋàññ ko yitam na fexey defaraat ab deram su fekkee ne daf ko uh, wax wax ju ñaaw itam lu mu ci mën di doon rek uh, su fekkee ne aji aj uh, moom mi nga xam ne moom lañ ko def te moom moom àq ji ma nga fa ne nañ ko nañ nañ ko delloo tooñaangeem loolee mooy lan mooy nañu dem jéggalu ko te fépp foo xam ne jaaroon nga fa yàq ab kon na fexey delloo delloo ñu ñu nga ko ku nga xam ne moom la tooñan ci ab deram wala mu ŋàññi ko wala mu saaga ko na fexey delloo ko àq jooju nim ko koy delloo mooy lan mooy na dem ba ci moom mu jéggulu ko waaye fépp foo xam ne fa la jaaraan yàq fa ab deram wala mu jëw ko fa mu sa wax ko wax ju ñaaw na fa jaaraat defar ab deram su fekkee ne nag ki nga xam ne moom la wax wax ju ñaaw jooju wala mu jëw ko wala mu ŋàññ ko euh, daf fee nekkatu dafa faatu kon moom mi nga xam ne moo ko def lenn rek la mën a def mooy nay baril aw yiw di baril ay tuya ba ngir bu ëllëgee su fekkee ne euh, àq yooyu war na koo fay mu man mu mën a fay àq yooyee ba euh, dese dara loo xam ne suñu borom mën na ko cee musal moo tax mu ne fal yu ka siril xay fal yu siril xayra na baril aw yiw laallahu xëy na moom yejit mu fekk say an dara yu waddi joj dana bijji dana ko indil xaqa kullihim àq képp ci ñoom bihi moom mustaxfiran muy aji jéggulu jéggulul ko boroomam wal yarju tamit yaakaar en fa rabbihi jéggalul suñu borom subhanahu wa taala kon na ngay baril aw yiw ngir bu ëllëgee euh, ñooñu nga xam ne ñoom nga yore lan ay àq nga man leen cee fay waaye na nga leen di jéggul suñu jéggulul suñu borom subhanahu wa xëy na boo di jéggulul suñu borom bu leen suñu borom jéggalee yow borom mën na laa jéggalaale ñoom ñi nga xam ne ñoo yoroon ñoom nga yore loon àq yooyu ñoom tamit ñu jéggal la waaye ngay yaakaar njéggalal suñu borom waaye di yaakaar itam euh, yërmande suñu borom subhanahu wa taala kon euh, foofu la ñuy euh, taxaw di tuub bu baax te jéggulu di wax ne in uridu illa islah ma stata'tu ma tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi doo sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey